52 minutes qu'on vous donne. Donc, résumé, donc rapidement. Euh, beaucoup de journalistes, ngeen may ma ma Tout tudd di jooy sunu néew yi fi jóge sunu doom yi nga xam ni Ousmane Sonko moo leen raylu ndax moo ne nañu wàcc ci mbedd bi ndax bakkanam bi moo gën bakkani ñooñu doomam wàcc ci mbedd mi adjoint wàccu ci mbedd bi benn membre bureau politique bu Pastef wàccu ci mbedd mi jël ay nit leen même di leen ay affaire ñu wàcc ci mbedd bi taal Auchan taal station yi toj oto yi lakk oto jàmbur yi ñëw lakk sama kër ñëw pour rey ma rey sama njaboot yàq suma alal ndax ordre lañ jot ku ñuy wax Ousmane Sonko kon ci bisu national bi nga xam ni ñuy gërëm président de la république bi mu décrété deuil national maa ngi jaale njabootu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 may gërëm soldats yi alkaati yi gendarme yi yi nga xam ni ñi ànd ak Ousmane Sonko ti mu xaw a naan seen yuur gi dañuy ñëw di leen songu te xaw ma luy ndey loolu parce que nee na ñoom ñoo mën a duma alkaati yi duma gendarme yi duma soldats yi jël réew mi jox ko Ousmane Sonko loolu mënul nekk du dëgg song ay brigade ay Vélingara ay Tamba ay Dakar song section recherche Samba jeri Diallo kazen Samba jeri Diallo bu Colobane buñ toge nak di son commissariat Parcelles aseli so alkati di anaya arrière di en arrière ñu ngay daw peut-être bu ñi reporté nan alkati ya ngay daw gendarme ya ngay daw ñi ngay en arrière xale yaa ngi ñëw ñu ngi sànni xeer xam ngeen deug deug senegal liñ fi bayal liñ bëgg a musiba naru layla heure bu ngeen ñàkkalee fayda ñi nga xamni ni tax ñuy nalaw yooyu tax ñu am jàmm moo tax suñ jabar yi dem marché di kenn du këf seen seen pochette yi attention bu ngeen néewle doole ñooñu réew mi anarchie moo fi am ma gërëm waa maris di gërëm bi ñu taali sama kër ma jàppale di wax ne man li ma jot ci message ci senegal man xamuma senegal ñi lañ ma bëggee fan yi dañ ma téléphoné téléphoné téléphoné téléphoné nekkate man lu doon def ci Sénégalais yi war naa ko dolli naka de lu may xaru di defaan ñu mel ne aji saar te amuñu ñaar dërëm yu ma fayee seen yaay dee bi ñu amee 14 ans amuñu mbokk bu leen jàppale ma taxaw jàppale leen ñu bëgg ma cee rey Sénégalais yu bëri gërëm nañu ma ci na ma ko doon defee pour Barthélémy Dias ñaar dërëm moom mosuma ko lekk ki ñàkk juuf bi ñoon moo ko rey maa ko défendre bi fi saaga euh, magistrat yi maa ko défendre Baba Fall maa ko défendre ba génne ko kaso Khalifa Sall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

bon un problème justice du y nous régler problème justice fi max na nekkee benn kooku sëriñ c'est un place ñun ñu yi bu du mais y a ak sa domaine justice a ko ni imam. y a un problème justice Il y a ko nangul imam juge Ndari Diop, le grand juge et le grand imam du tribunal le grand instance de Dakar. Il est juge et imam. Je suis le pas le président Ndari Diop. Plein tribunal pour crime assassinat incendie volontaire destruction des biens les biens yak. Ousmane Sonko directement la porte plainte. de contre Ousmane Sonko le réquisitoire mais code X mais qu'il n'y a pas plainte code X. ñu je suis très sérieux mais xoolee ni ñu doxee ci kaw maa ñëpp gëm di man dañ ma wax fu ne xam nga sax conférence bi ma def ko tey tey tey tey tey film boobu ñu génnee montage boobu moo tax tey ma koy conférence de presse bi dama ne dana wax sama sama sama kër gi ñu lakk bu poyee ba pare yëpp pare ba ma déposé plainte ba sama avocat yi oo leen ma toog seen wet ñu expliqué loolu dinañ amaat mais bi ma gisee muy law ci diaspora bi Amérique oo ma Italie oo ma France oo fu ñu oo sara ya ooma Matam militants yi ni ma ngi na xamu ñu la won daw daw res mais am na luy daw ñu naan léegi xamu ñu xol film ñu mën xol xool ay édition man dama gëm ni may falu 2024 inshallah rabbi rabi l'homme du 23 juin vous donne rendez-vous en 2024 terrain bi kañ réseaux sociaux yi ak presse di lay utiliser di wër di wax am say am say site internet taxul nga falu Macky Sall l'avait dit nee na en 2019 mille bi ñu campagne wër le Sénégal mu ne xam foog ngeen ne réseaux sociaux yi ak di saga moy tax ku foo moy tax tax falo falo gulo am ñu lay xéxal ci mbedd mi rey seen bakkan say doom tok sa kër yow nga tok sa kër say militants yi de premier plan kenn gisu leen ci terrain bi ñi ciow ci plateau télévision yi kenn seenu leen ci manifestation yi ñu utiliser ay doomu jambour c'est même doomu waccul ñi nax boy ñi dee pour ñom ay université ay banlieue di toj ñoom di toog croiser les bras